yetti neena na ku ci ne amna lo xamne xam baye xel bañ ko fatte rek dara la wañi dara moy njaqare lu mutis tis bu fekke ne wo ñaan sa borom yaangi ñaan yalla rek lu njaqare la tis tis say bo sa xel dal jam rek cee mujj ba ca topp moy bàkkaar lu mu reey reey bu fekke yaangi seug ci jeglu tey réccu rek say sa xel dal jàmm rek cay mujj ñetteel ba mooy xéewal lu mu rëy rëy ak lu mu bari bari boo dee sant rek say sa xel dal day yokk waaye du wàññi ko